Mamadou Ibrakan, directeur général du groupe Futur Média. waaw Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax né ñu ngi fii Thiès euh, ci ndigelu suñu président Youssou Ndour président groupe Futur Média l'ensemble des directions du groupe Futur Média ñeu fi di indi suñu njaal suñu solidarité suñu soutien ci Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye nek koo xamante ku am solo la ci ñun ndaxte ku mën liggéeyam la ku bëgg liggéeyam la ku xam digganteem ak groupe bi la xam digganteem ak ku nekk ci ñun ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ak moom président yu Ndour di wone cofeelam ak surtout respect ndaxte moom mu ngi yëngutu itam ci wàllu culture respect ci ki nga xamante ni itam homme de culture la maanaam Cheikh Ndiaye euh, di ko masaw ndaxte ñàkk sa soxna à la fleur de l'âge comme niñ koy waxee soxna si Débel Baldé di ko massaw di ko wax si gil ndigaale di wax ne soxnaam ku jullite la ku baax la nit ku dal nit ku teey la woon ndaxte nekk ak borom kër boo xamante ni comme nuñ koy waxee homme public la ñu nekk ci jamono joo xamante ni vie publique ak vie privée dafa dem ba jaxasoo mais ñu gis ci soxna soosu mu nangu nekk ci wetu borom këram dans la discrétion la plus absolue taxaw taxaw ko taxawal ko njaboot gi ak waajur yi ak goro yi ak xale yi ak ñi nga xamante ni dafa moom Cheikh njaay dafa am ak amanteeg ñoom jàmm ak salaam loolu nga am soxna bu la taxawal taxawaay jooju te nga yëngatu ci loo xamante ni boo amul ku la taxaw rekk daanaka mbir mi dafay doy waar dafay metti ñu ngi sant yàlla itam gannaaw bu ñu fekkee fii Cheikh Ndiaye ak naxar bi nu mu toll te ñu bokk ak bokk kook ñoom moom ñu fekk nit ku gëm yàlla nit ku nangu ndogalu yàlla nit ku dal nit ku teey loolu noo seulement ñu ngi koy rafetlu waaye dafa dalal suñu xel ndax de moom Cheikh xale la ñàkk soxnaam koo xamante ni itam xale la loolu boo nekkul nit boo xamante ni bu am équilibre ci sa wàllu diine ci sa wàllu dundin ci wàllu société bi rek dina dina doy waar donc loolu dalal na suñu xel ñu ngi jëbal donc suñu njaal mu jóge ci président Youssou Ndour jaaree ko mboolemu direction groupe Futur Média mboolemu personnelu Futur Média di ko wax si gindigaale di ñaanal soxna si yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla teeroo àjjana te suuf si sedd ca kawam bu ñu sañoon de tey Futurs Médias ñun ñëpp dañ koy tëj ñun ñëpp ñu ñëw waaye dañu nekk ci liggéey boo xamante ni wax naa ko sànq foo continue la dafa am dafa nekk loo xamante ni du taxaw rajo bi day day wax télé bi day wone lu muy wone journal bi day génn